mbokki baaxoo di teewlu xibaaru bambuk daleen na jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi commerçant yi nga xam ne ñu ngi aju ci UNACOIS Yessa nekk fii ci euh, commune bu euh, Koungheul ñoom nag daal doon nañ jàkkaarloo taskatu xabaar yi di àddu ci euh, doxalin bi nga xam ne jàpp nañ ne mairie bi mu ngi koy doxal ci marché ba te ñoom jàpp nañ ne du dëgg du yoon Moussa Ndaw Mamour Thialaw ak ñi àndal daal doon nañ jàkkaarloog euh, taskati xabaar di xam ne rek euh, poñ yi nga xam ne jàpp nañ ne mairie bi mu ngi koy euh, daf ci marché bi te ànduñ ci mu bokk ci cantine yooyu nga xam ne fas yéene nañ ko toj ngir daal di amal place de l'indépendance foofu ci ginnaaw mairie ba gannaaw loolu nag ki nga xam ne mooy premier adjoint maire bu Koungheul di Mamadou Ndiaye daal di nay génn moom tamit indi leeral ci kàddu yooyu nga xam ne commerçant yooyu nekk ci syndicat naa ko yeesal daal dinañ ko yëkkati di xamle ne projet boobu du dara lu dul fexe ba tax li nga xam ne mooy place de l'indépendance ci ginnaaw mairie mu ànd ak commerce centre commercial boo xam ne euh, dina am ay cantine ba tax na képp koo xam ne jëloon nañ sa cantine ci euh, alignement boobu ñu daal di la koy euh, delloo gannaaw loolu tamit daal dinay xam ne ne chantier yi nga xam ne daal doon nañ koy tàmbali ci biir marché bi presque lépp teer jeex na dalloo ko rek moo des ay bis yi di ñëw dinañ ko fas yéene dalloo ngir ko askan bi mun cee gis seen bopp gannaaw loolu ñu àddu ci euh, au conseil des collectivités euh, territoriales ak commission yi nga xam ne ñu ngi leen dam euh, taxawal ci loolu nag ñu mën a gis doomu Koungheul bi nekk maire bu Missirah di Moustapha Ndong daal di jiite commission chargée de la coopération des et finances des collectivités territoriales loolu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne tijji nañ première session ordinaire bu 2023 loolu sax tax ki nga xam ne moo jiitee Euh, kuréel googu di Aminata Mbengue Ndiaye euh, daal di euh, sàkku ne deuxième mandat bi nga xam ne daal dinañ leen koy jox dinañ fexe ba jël accompagner politique ak mesures yi nga xam ne nguuru Sénégal dañ koy teg ngir ko askan bi mën cee gis seen bopp leneen li nga xam ne tamit fas yéene nañ taxaw mooy fexe ba Sénégal yoon bi nga xam ne ci la nekk ci jëm ci développement ak émergence ñu daal di koy wéyal loolu nag dara du ko daf lu dul accompagner politique yi nga xam ne ak euh, mesure yeeg projet yi nga xam ne état daal dina koy tàmbali fii ci biir euh, réew mi gannaaw loolu ñaar bi ci jàkkaarloog taskata xabaar bi nga xam ne kii fi nekkoon euh, procureur de la république de Serigne Bassirou Gueye amaloon na ko niki démb nag di àddu ci accusation yi nga xam ne jàpp na ne Ousmane Sonko da koy def ci moom te du dëgg moom nag nee na du ko porte plainte waaye lim daf mooy lépp loo xam ne daal dina koy wax ci moom te du dëgg da koy teggi waaye tamit fas yéene na wéy pour leeralal askan bi tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci ndodd ne dara amul gannaaw loolu moom nag loolu boo gisee mu tax ko mu ne jàpp na ne am na argument ak idée yi nga xam ne li nga xam ne ñu ko koy tuumaal te du dëgg mun na koo dindi moo tax du aaju muy daal di porte plainte kii di Ousmane euh, Sonko gannaaw loolu ñaar du ci wàllum euh, tàggat yaram ak waajtaay final bi nga xam ne ni am ni ki suba 28 janvier 2023 fële ca stade municipal de Koungheul war a am ci diggante cadet jàmbaar ak daara ji senior yëgoo ak daara ji nekk finale zonal euh, championnat zone une A loolu nag tax na xibaar bamb daal doon euh, dam euh, seet ñi nga xam ne ñooy dirigeant yi supporters yi ba ci joueurs yi doon waxtaan ak ñoom ci waajtaay bi nga xam ne ñu ngi koy waaj match bi ñoom ñëpp nag daal di yëkkati kàddu ba xam ne ne match bi bu am solo la ci ñoom waaye dinañ fexe ba ñu daal di koy jouer ci fair play ak ku mën a gagné rek daal di gagné président de la zone di Bassirou Socé daal dinay xam ne ne lépp yem na ci wàllu organisation pour que finale bi daal di.